te ànd amaa layta laa la amuñ noonu kenn du leen oyofal ànd na ak ànd buñ leen oyofalee dañuy liggéey wujuban ci lu war am na yenn sart nag yuñ ci yuñ ciy teg yeneen mbir waaye nag dañuy liggéey ñoom oyofal leen ñàkk leen oyofal dañuy liggéey nasab lisim rafa xabar ànd na ak ànd laa na inna buñ ko oyofalee dafay dagan mu liggéey dafay dagan ñu neenal ko amma laakin moom buñ ko weefalee du liggéey mukk neenal loolu mooy seen atte li ci des mooy yeneen sew sew yeneen sew sew yi muy jàngale an inna al muxafaf buñ oyofal wa jawaazu imaala ak dagan ak liggéeyam liggéeyam wa imaala ak neenal ko inna léegi-léegi des nañ ko oyofal mën naa dagan mu liggéey mën naa dagan mu ñàkk liggéey ka in comme in almaksuura guñ kasara mu xafafa mooy luñ oyofal in buñ kasara in in zaydun wala in angam in yooyu wala wala mooy in in al maksura buñ kasara inna daal buñ kasara mu xafafatan diruñ oyofal dana liggéey wala mu bañ a liggéey maana haasal maana wax ji mooy andoon ne moom kama juus comme nu al ihmaal jëfloo wala ihmaal ak neenal fii laytama ci laytama kazalika comme la juus lay daganee fii inna ci inna al maksura buñ kasara am daga isa buñ ko oyofale kon ka in koy néew layta نك إن كم إن المقصود أقول كذا نام زعما مخفف الدنيا أيفل من ناليجي من نامي ليجي كم لا يتو كخاولي كني كسوه إن زيدون نك زيد لا منطلقون أجي بايلا كولن كونينا زيدون منطلقون مطلع خبر من قال إن زيدان نك زيد منطلقون أجي بايلا زيد اسم إن لا منطلق خبر إن لا والأرجح لجن لنج ci ñaari waxi al ihmaal mooy neenal ko bañ koo liggéeyloo ak sa layta sabaan layta layta bu ci maa duggee liggéeyloo ko moo gën neenal ko amma in buñ ko oyofalee neenal ko moo gën a lëng liggéeyloo ko qaala wa taala yàlla mu إن كل نفس لما عليها حافظ إن حرف النفي مبني على السكون لا محل من الإعراب تكون هنا الفي كل مبتدا نفس مضاف إليه لما لا تحصر ولا حرف بمعنى إلا على استثنائية أي إلا عليها عليها جارك مجرور يعني كخبر مقدم حافظ مبتدا مؤخر إن في أمود لزمك xabar liggéey dara alxuraan da ko neenal loolu mooy li gën a lëng in kullu nafsin lamma alayha xafiz ay illa alayha xafiz lamma léeg-léeg mu yore maanaa illa wa in kullun lamma jamiun ladayna muxdurun fii lamma maanaa illa la in waag waaw istisnaa fii la in xarfu nafin kullu mubtala la lamma bi maanaa illa la jamiun xabarun كل مرفوع في إن كل في لما عليها حافظ الجملة هو ما يخبر بدين ما يخبر بريك فيه فينا كل إلا جميع هو ما يخبرك جميع خبر مرفوع لدينا ظرف makkaan la mansubun man kaan sax fataagu ne tëri ga laday gi mooy kii bi fataagu ne tëri ci alif yaa ladaa la woon gi dañ ko changé yaa dégg naa gi mu saani marfon wen kunun illaa jameun لدينا محضرون لدينا لين سوغنا في فوف لكو نين البتي وقال تعالى وإن كلا لقيونك لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن مخففة من السقير كلا اسم إن لا منصوب لام قلام ابتدالا معك اسم موصول لا في محل رفع القبر إنما خفر وإن كل لما لام جي واقع في جواب قسم مقدر ولا لا يوفي النوم يوفي في مدار من يعرف فتى الاتصال بنون التوكيد الثقيلة حاجة مفهوم به من جعل متجمع ربك فاعل كافك كاف مضاف أعمال مفعول ثاني ci yoo fi yenn xum dégg mhm. foofu liggéeyloo na ko kullan ma xaraa jàng na al xaramiyaa ni ñaari waay xaram ya wa abu bakar abu bakar bi taxfiifi ci oyofal wala ihmaali ak neenal ñoo jàng kullan wa ihmaal ak jëfloo ko dañoo noonu jàng wayn kullan lam maa yoo fi kon gis nga ne kon in amul problème moom daal boo ko nee na de mën naa ne xabar mën nga koo boo ko oyofalee mën naa ne sa bisim rafaa xabar mën nga koo neenal mu am mubtada ak xabar إن الكافرون إلا في غرور mubtada xabaar rek la laakin laakin al muxafafa buñ oyofal muhmala moom it lu ñuy neenal la laakin boo ko oyofalee danga koy neenal moom amul benn wax neenal rek du liggéey mukk wa amma laakin waaye laakin muxafafatan bu ñu oyofal fa tuhmal dañ ko neenal wa zaalika loolu li zawaali ixtisaasiha ngir dañ ak jagloom bi jumlati ismiya si jumla ismiya xam nga bu demee ba nar dugg si jumlaay fi'liya rek kooku moo amatul dañ koy dañuy liggéey loolu yëpp day jagoo si jumla ismiya parce que in nag mbokkam jumla ismiya dañuy dugg waaye laakin buñ ko oyofalee mën naa dugg si jumla fi'liya moo tax moom dañ koy neenal duñ ko liggéey loolu qaala llaahu taala yàlla nee na wa maa zalamnaahum tooñuñ leen maa ginnaaw fii la daram naa fenlu maaji la fenlu mm-hmm. faayil la fen dañ ko binaa sukkoon nag mm-hmm. naa gi mooy faayil xom gi ma fonum bi walakin li fi nekk kaanu nekk rek xam nga laakin fii liggéeyu dara parce que si jumlay fenl yàlla dugg mm-hmm. kaana waaw gi mooy xabar ismu kaana marfuun hum ñoom azaalimiina walakin waaye nag kaanu nekk nañ hum gi tey tawkid kaanu damir bi azaalimiina mooy xabar kaanu كون انا لكن لوم ليغي اسمو ما خبرام اموت دنج كو نينا لكن بو نكو يفال رك نينا لا وقال وانا تعالى علمكم لكن وائل فينك لكن الرازقون الرازقون فينا المؤمنون والمؤمنون يؤمنون الرازقون مرتلى على فينا مجارة مجرور منهم تمجارة مجرور والمؤمنون ما توفي الرازقون يؤمنون جملة بو ما يخبرك لكن الرازقون فينا المؤمنون والمؤمنون fii mu ne li see rek fa daqala dugg naa la jumla tene si ñaari jumla yëpp ismiya ak feneen araasi xoolal feneen ñu ne woon moom noonu yëpp la fii ismiya la waaye walakin kaanu muzaarimin jumla feneen la kon laakin buñ ko oyofalee mën naa dugg si jumla ismiya mën naa dugg si jumla feneen moo tax du liggéey. ndax am na na dañ nangam lay commencé rek nangam lay commencé wala xaraf sàngam lay digg rek déedéet amut jeex kon in buñ ko yefalee na liggéey laakin buñ ko yefalee dañ koy neenal an buñ ko yefalee moom dafay liggéey wu jubal mais moom laaj na ay wax mhm. mook ka an ان ان المخفف فانا عامل اجي جف لو وجو من سي واما ان فتامل دنا جف ويجب دنا وار موم جف غوغو في غير ضروره سي لو لور واي لور واي لا ولا بوك في لور واي لا نين ماي ساتي داك دا فاي وار في غير ضروره سي لو لور واي حسب اسمه حسب اسمه شان لي دميرو بير اي ان nay mbir te mbir noonu la ko gars yi di firee sax annahu moo doon cosaan de mooy ismu bi dañ koy xasaf te damir lay kon moom ismam damir lay doon te koy xasaf wa kaw na xabariha ak nekk xabaram jumla tan di jumla mafsuratun buñ teqaleeg dégg nga bu dee nañ commencé nañ ko ba fin ci fin mu tasarif bu soppeeku xëy na doyen boo xam ne du xabaram fenlu la commencé maanaam jumlaay fenli la mhm. te nekkul fenlu jaamit fenlu buy soppeeku la mhm. ñaan fenlu boobu du wàll ak ñaan mhm. foofu xabar gi ak ismu bi teqalikoo ci xat kon wa an lawis taqaamu hmm? aw tanfiisin wala siinu tanfiis aw nafin wala daax aw law amay saqaamu fenlu la fenlu boobu doon luy soppeeku maanaam feebar buy soppeeku nee nekkul jaamit te nekkul ñaan ko ñetti sart jàpp ko dafay liggéey ci sartaab damir bi nekk damir eh, ism bi nekk damir damiru shan damir guy tekki mbir damir bi dañ koy xasaf xabar bi ak an gi duñ sasuroo bu dee xabar bi jumlaay fen yàlla maanaam fen la commencé nekk fen buy soppeeku du ñaan loo ci déggee bu dee xabar bi jumla ismiya la mën naa sës ci an ki bu la mën naa sës ci an ki bu ñaan la mën naa sës ci an ki waaye bu dul benn ñetti yi xabar gi an gi foo ñu teqali ko lii mooy charte yi nga xam ne ni an dana ko liggéey xam nga lu ma wax hmm. xabar bi damiru mbir damir buy tekk mbir lay Very good. اسم بلا وقت دم بيتك كبير لذا نعرف بفهم حسبك نتال بنك نتال سات بو ما أجلس خبر نعرف سات ما أجلس اسم دم بيتك كبير لذا فهم حسبك نتال سات بو ما أجلس خبر ما خبر بجملة رجل ما ندون دونك مفرد ñeenteel ba mooy bu nekkee jumla du sës ci an ga su fekkee fi'lu la buy soppeeku tekku ñaan ñett bu ci xëtt nag mën naa sës ci an bu dee du fi'lu jumla mën naa sës ci an ga bu dee fi'lu mën bu dee fi'lu buy ñaan la mën naa sës ci an ga ñeent saatir kon boo ko taqalee ñaari saat dellu ci ism bi ism bi damiru seen lay teg dañ koy xasaf yeneen ñaari saat dellu si xabar bi xabar bi du nekk mufrad jumla lay lay doon mooy ñetteel bi hmm. jumla boobu nag mën naa sës ci an ga su fekkee benn si ñett yi dafa dàq mooy mu nekk jumla ismiya wala mu nekk fen buy jaamit wala mu nekk fen buy ñaan bu dee ñett yi yëpp benn dàquwut si jumlay fen ya la buy soppeeku la Hmm. wala wala euh, wala jumlaay fiil la boo xam ne fiil bi ñaan la su baax hmm, xabar bi moom du sës ci an bi dañ koy teq rek wala tanfis wala nafi wala law ñeenti saati la waaw ma an waaye an al buñ fata fa innaa nag moom isa xufifat buñ ko oyofalee baqee des na laa ma kanaal yi ci nekk min wujubi imaal yi ñëwar koo liggéeyloo laakin waaye nag yëjibu dana war fi isma ci tur ñetti mbir فنيكون منك دمير لزمير لا ظاهر دفن من يطلق دفسه وان يكون منك من دمير بمعنى شان يرى معنى امبير وان يكون منك دمير محذوف دون حذف جاب جنتي دمير لي اسم بنك دونك اسم ظاهر دمير بدمير شان لا دمير لين بحذف يي لني ساتاسي اسم ويجب ان في قبر ياتي قبر بان يكون هناك جمله دي جمله لا مفرد دونك مفرد fen kaanat bu nekkee jumla te jumla ismiyatan di jumla ismiya mhm. aw fi'liyatan wala mu jumla fi'liya bi jaamidun lu way la aw fi'liyatan wala nekk jumla fi'liya mhm. te fi'la fi'lu soppeeku waaye woowu moom du amul ñaan la mhm. bi soxlu ko teqaleeg saa ji teqale yaf ko teqaleeg mi ci an ga misaalu ismiya boo xam ne jumla ismiya la tam sës ci an ga xawloo taala mooy waxee yàlla jum an lii mbir te mbir alhamdu cantillah ñeel yàlla rabbi alamin kay borom mi def an mu xafafa min saqil la ismuha damiru shaani maxsuuf la taqdiru annahu alhamdu mubtada la lillahi jaara majrur xabru mubtada rabbi naaturati llahi alamin mudaaf ilayhi la wal jumlatu ismeegi fi maale rafi xabru an lu tax jumla bi sës ci an gi parce que jumla bi jumla ismi la taqdiru na la mooy annahu lay mbir tamit alhamdulilah kon xabar bi fii sës na ci an parce que jumla bi jumla ismail du jumla ay alamru lay mbir wa shaanu moo tax gis nga ñii firi noonu lañ ko fi an lay mbir te day liggéey nag xamal lay mbir te mbir nga wax mooy ismu fa xufifal oyofal nañ an nga wax si ba ñu xasaf isma isim ba wala taa nga méngale ko ak jumla ismail jumla ismail bila fasilin ci lu teqale jumla ismail moo fa bu fekkee xabar ba jumlaay fi'liya la moom it mën naa sas wa misaalul fi'liya bu dee fi'l ba jaamit la wa misaalul fi'liya misaalu xabar boo xam ne jumlaay fi'liya lati bi nga xam ne fi'luhaa fi'lu ko jaamitun dafa way mooy yàlla wane wa an asaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum wa an ay annahu asaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum ak wa an laysa lil insaani illa ma saa ay wa annahu laysa lil insaani illa ma saa xabar bi dafa sas وجواب عن فلان مخفف من ثقيل الاسم آدم من شعر معصوب تقدير أنه حصل فعل جامد ممنوع يعرف فتى أن حرف مصدر اسم يكون في المدانة في منصوب اسمه ضمير مستتر تقديره هو والمصدر مؤول من أن وما بعد في محل في فاعل عسى وأنا عسى أن يكون هذا كون كون الكون كون الأجل كون اقتراب أجلهم تحقيق حرف تحقيق اقتراب فعل ماضي اجر فاعل مرفوع هم جي مضاف اليه لغي جمله عسى ان يكون هناك في ماضي رفع إيه؟ خبرا كما خبر بيستثنى تي انك باسكو فعل بي جامد لا وان ليست من ان جنون انك ليس فعل ماضي جامد ناقص الانسان جار مجرور لخبر مقدم الا أداة عصر ما اسم موصول في المعرفة اسمه ليس مؤخر سامع في الماضي جامد لا نك سلة موصول طب ليس للإنسان جوجو جملة جوجو إلا ما إلا ما إلا الذي ليس الإنسان إلا الذي جار مجروري والخبر ليس ما جمعه اسم ليس مؤخر تقول فليس الإنسان إلا ما جو ما خبره عن نقف المعرفة رفيق lu tax parce que fenl bi fenl jaamit la moo tax mu sës ci an ga wa taqdu natari mooy wa annoo ne le am baam asa amaana wa annoo le am baam lay sa wa misaalu lati misaalu bi nga xam ne fenlu a fenlu bi lu yàlla ba <coughs> mooy an li mbir timbir xadi ba yàlla mere allah wel xale yaa normalement an gi ak xabar bi mënul woo taqalit waaye fi'l bi moo nekk moo yore maanaa ñaan waaye goo xarf la xaamisatu mubtada wa marfuun an muxafafa min saqil wa isma damiru shaarin taqdiru annahu qadiba fi'lu maadi la allahumma fa'il adaa jaaru majur ajisa qadiba jumla gi fi maana rafi jumla qadiba allahu adaa fi maana rafi xabru an an ak ismu xabru fi mahalli rafi xabru mubtada dégg lu tax xabar bi sës ci an gi mooy xabar bi jumlaay fin la waaye ñaan la kon su fekkee xabaru an gi jumlaay ismira mën naa sës ci an gi damir moom damiru chey na leetam dañ koy asaf xabar bi bu dee jumlaay fin la waaye fin bi jaamit la mën naa sës ci an gi soxlawul du ko teqale xabar bi jumlaay fin la waaye fin bi ñaan la mën naa sës ci an gi بوش بان شي قتيني خبر بقى كنجي دق ولا تنفيس ولا قد ولا لو مو كيتقل في قراءة من قفف سجاني كويف الأن أن وكسر مكسر الدار أن غضب الله ولا في أن غضب لك كوكو مو اسم يلا أن غضب الله مرم يلا عليها يلا نكس مو غضب مو اسم إنه عليها جار مجرف معرفة خبره إنه yonent islam asalaam léegi mu ngi danaa di benn yoon fi ñu ko war a teqalee yonent islam asalaam tuma tawfiqi illaa billaahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu